leen ziar yéen ñi si waroon sport te yow war a ñëw yéen waa ci Ismaïla Sarr di ñëw regarder le match euh, excellent de Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr te match bu baax a baax la def euh, daañu ñu gën kaa faram fàcce mais laata loolu dañuy wax yéen ñi gan ci page bi ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour ngeen seen vidéo au temps réel ngeen di partage ay lien ngeen di partage ay lien loolu ngeen mën a dooleel dañu la dooleel autom war a dugal vidéo mi kon dañu dugal vidéo bi waaw gars yi regarder Ismaïla Sarr match bu excellent bi def match bu exceptionnel bi def match bu rëy bi def vraiment euh, xale bi gaynde la xale bi jàmbaar la xale bi Euh, franchement mérité wul nekk deuxième division baagal tey war na faa jógee ensemble nañu liggéey ci loolu tey Ismaïla buy dugg def une deux course militaire de passe dañ gis malgré Sénégal ni war a doxee doxul ko waaye daal franchement Ismaïla Sarr def na match bu réeree boo xam ne kenn foogoonu ko boo xam ne kenn yaakaaru ko boo xam ne kenn xaaruñu ko mo xamné ken kenn ne xale bi capacité bi ak sant bu ñëw dina ko wane bi malgré Sénégal qualifié na pare waye sagal na Sénégal wane na fulla wane fayda wane na mom dafa bok ci cadre équipe nationale bu Sénégal ndax yag na ñëw Sénégal malgré xale la amna na trop ci trois coupe d'Afrique deux coupe du monde fool ay max yu bari bëri kon Ismaïla ñu ngi lay bégee ñu ngi lay bégee dem ci wax fierté bu baba suñu xol li sedd ñuy bëgg toujours di bëgg di la Euh, li ngay wane sa bopp ak temps bi ne ci yow kon gars yi Ismaïla Sarr mi ngi noonu tey def na match bu rëy rëy rëy malgré match bi pour l'instant 1 na mais nag baax na baax na baax na ñun a ñor match bi temps de jeu ñoo may xale bi ñoo may xale yi jàll na ingi dégg message def na li bëggoon kon loolu dañuy béekloo i ñuy suivre vraiment pour amoon leen ngeen commenté ngeen partagé ngeen xaar ci ngeen jàng ngeen numéro merci beaucoup ak ngeen jaajëf bu baax a baax a baax